Je relève le défi de mon cher collègue euh, Paul Kagame, président du Rwanda. Je vous invite, vous aussi, à faire de même moo xam sa oto la wala sa bureau bul tayal jël matukaay buñ fagarawul duñu jog ci saabu ñeewu di konte kaay raxasal say loxoog saabu tegul fàtte di sol masque antiseptique dakkal nu yoo bi balaa virus bi gëm di tas fagarul bul faju daw ca ba nga amee tàng booy sa kër soj sa yaram di tàng bul fàtte woo sama feebar bi gene suñu adduna bi amaguñu antidote nañu wàññu dem ak dikk bi te ku nekk des fi nga toog jóge na siin ba teraf fi xëy songu sama réew yóbbu na xel yóbbu na fit xëy bàkku sunu fu mu jaar bàyyi fa trace mais fii nañ ko songu daan ko jël ginnaaw bi ñu tëjee yi itam feebar bi génnul nañu moytu fréquenté gox yu ñu mettre en quarantaine bul fàtte jëfandikoo muswa soo paree def ci poubelle aaral sa bopp aar say mbokk ndax virus bi daa mortel boo yëgee feebar bu génn toogal te woo sa médecin teelal jël say matukaay tey daw fi ñëpp di daje car rapide kalandoo coronavirus bi indi na panique fi ku nekk na jël say matukaay yow mi ci bureau bi gàlle bi fexeel ba aar sa bërëbu liggéeyukaay jóge na siin ba terax fi xëy song sama réew yóbbu na xel yóbbu na fi xëy bàkku sunu fu mu jaar bàyyi fa trace mais fii nañ ko song daan ko jël ginnaaw bi ñu tëjee frontière yi tam feebar bi génnul jóge na siin ba terax fi xëy song sama réew yóbbu na xel yóbbu na fi xëy bàkku sunu fu mu jaar bàyyi fa trace mais fii nañ ko song daan ko jël ginnaaw bi ñu tëjee frontière yi tam feebar bi génnul Je vous invite vous aussi à faire de même pour barrer la route à la propagation de la maladie covid Ouvrez le robinet, mouillez les mains, versez du savon dans le creux de votre main, frottez-vous les mains, les doigts et les paumes. Prenez votre temps, cela peut durer plus de 30 secondes. Entrelacez vos mains pour nettoyer entre les doigts. Nettoyez vos ongles et les bouts des doigts. Rincez-vous bien les mains. Séchez-vous les mains, si possible avec un essuie-main et fermez le robinet avec.